أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey ji mi ngi jëm ci alwiqaayatu wal ilaaj jëm ci fagaru ci wàllu set tabaarakallahu lislaam dinañu tedd ji def ñu digal laab te ku ñu laab ni set set ci sa yére set ci sa yaram set ci sa néeg set ci mbedd mi ngay dox set ci lépp li la wër fa tabaarakallahu loolu nag set googu moo nu ñu dàqal jàngoro yu sew yi te mooy microbaat yi moo ñu wattu ci sunu wérgu yaram fii daal alhamdu ñu àndu xool ko li sharia wax ci set ci sa yaram ci say yére ci berab bi ngay jaamoo yàlla ak ci lépp li la wër borom bi ci alquran mi ngi ñuy sant di ñu digal waxtu wu ñu waree julli nañu jàpp jàpp lu muy àndal raxas sa loxo raxas sa kanam raxas sa bopp tabaarakallaahu raxas say tànk gallax ndiku sarax ndiku sëlmu alquran ñëw yaxal ka yaa ayuha alladina amanu ida qumtumu ila alsalaat faxsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq wamsaxu bi ru'usikum wa arjulikum ila alkacbayn وإن كنتم جنبا فطهروا إلى أن قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم suma borom ne yéen ñi gëm yàlla gëm yi mu santaane te gëm wéetaay ba mel waxtu wu ñu noddee war taxawal julli na ngeen laablu moo di na ngeen jàpp raxas seen kanam seen ñaari loxo ba ci conc yi tabaarakallaahu masa seen bopp dem ak dellu si raxas seen tànk ba si tibu jara yi ne su ngeen àndee ak janaaba nag na ngeen sangu ni yàlla jubluwu si lu dul yombalal leen ko tegu leen benn contrainte tegu leen lu diis dafa bëgg laabal leen setal leen mottali xéewalam ci yéen ci ñun ngir ñu mën di ko sant kon dattu jaamu yàlla tabaarakallahu set mooy base fondamentale pour nga mën jaamu yàlla jullit xeetu jaamu yàlla yépp soo dee julli da ngay jàpp soo dee aj màkka da ngay sangu set sol sa armal dem tawaafi soo paree nga sanguwaat set tabaarakallahu kon set moo nekk ci fépp macha allah soo sëyee da ngay sangu soo yewoo da ngaa raxasu da ngaa boros yi la yëpp alquran moo ko santaane yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam buniyal islaamu ala nadafa nee na lislaam ñoo ngi ko fondement ci set képp kuy woote jullit te set nekkul ci yow nekkul ci sa yaram nekkul ci sa yëre nekkul ci sa dëkkuwaay am na lu manqué sa lislaam ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam at tahuuru chatrul iman nee na laab set propreté mooy genn wàllu liimaan su bëggee dégg pas-pas ci yàlla suñ ko xaajee téeméeri xaaj juróom fukki xaaj yi tabaarakallah mii nekk ci set soo amee juróom fukki xaaj yi tabaarakallah mooy set sa yaram set sa yére ba ñëpp ràññeel la set tabaarakallah am nga genn wàllu pas-pas ci lislaam nee na inna allaha nadifun yuhibu nadafa yàlla mooy ki set te sopp na ñi set waaw kon mbokk yi yile tey moom lañ leen indil mu doon loo xam ni sa diine dana ci feeñ ca ragal yàlla dana ci feeñ wante sa dëkkandoo ak doomu aadama yi dana ci feeñ ndax sa digganteeg yàlla kooku julli ga la tabaarakallahu njàpp ga la sangu ga la mais ki nga déndal bokki néeg muy sa soxna wala sa borom kër sa njaboot sa liggéeyukaay mais soo setul nan nga mën a ànd ak ñoom xet gu bon di leen rey la xawla wala quwata illa billahi moo tax sallallahu alayhi wasallam nee na al wuduu silaaxul mumin nee na njàpp daal mooy gànnaayu jullit mooy gàllaaj mooy gànnaay ndax soo jàppee dañu la yéegale ci malaayika yi malaaka du lekk du naan du sëy du tojal kon soo àndeeg njàpp yaa ngi mel ne ku ñu dugal ci benn vase benn bocal en verre dara du la laal tabaarakallahu bët ak cet ak làmmiñ du la laal yee tojal njàpp su tojalee nga daal di toj verre bi nga génnaat jàpp delluwaat kon mbokk yi na ngeen sàmmoonteeg njàpp lu ngeen am ci gàllaaj baax na wante jàpp daal muy gën di gàllaaj xaqullahi ala kulli muslim an yaxtasila fi kulli sabaati ayaam yowman yaxsilu fii rasahu jasadahu aq bu dox suñu digganteeg suñu borom ñu ameel ko yàlla ñun julit bu nekk ameel na ko yàlla semaine bu nekk lu mu gàtt-gàtt war nga sangu benn yoon donte ajuma la bokk nga raxas sa yaram raxas sa bopp ameel nga ko borom bi une semaine une fois par semaine xanaa nit ku nekk nag lu mu gàtt-gàtt une fois par semaine bare na war nga mën par jour te sax suba ak ngoon war na mën sangu rawaate na ku dëkk ndar ndox mii di walangaan mais nit ku dëkk dëkk yu mel nii ndox jafewu la na jamono sallallahu alayhi wasallam dañoo wër ci désert bi pour am ndox soo ubbee robinet ndox xelli mais feebaru tilim feebaru hygiène warul dal doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi wasallam bés am na i saxaaba dugg si si moom ba ñu duggsee am nañu seen bëñ dafa taq ba teg ay tàrt mu leen yéen fan ngeen jóge yéen ana soccu dem leen ngeen socc jiwaat ndax ba ñu ŋaaŋee rek la xawla kenn mënu lu ko nettali kon xam nga ni lii lu garaaw la te ba tey société yii ñu dund soccu am na brosse à dents am na mais nit yaa ngi lor sa mbokku julit ci ñàkk brosse sa gémmiñ xoolal jëkkër ak jabar yow soxna si wala yow borom kër gi ngeen ànd yendoo liggéey yendoo coona ba guddi jot ngeen war seq lal bu tuuti boobu rek tabaarakallaahu te brosoo sa gémmiñ loolu nan la war a mel ngay lor sa mbokk julit ba noppi nag naan ko su ma la soxlaa te nga gàntal ma malaaka yaa ngi lay rëbb xanaa yow la malaaka yi di rëbb d'abord ndax yow yaa tooñ jigéen du jaam boobule soo ko soxlaa war ko jariñoo yow tamit war nga am noo mel mais soo ñëwee sa poqataan yi xasaw sa yaram tilim ñaq tooy xeb sa gémmiñ di am lu muy xeeñ nga bëgg jariñoo sa soxna mun la dama gàntal nga ni ko malaaka jàng lay rëbb mais xoolaatal sa bopp yii de ku ne war na ci yeewu yéen salaa salaam bis janoog saxaaba yi ni lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki inda kulli wuduin suru kon bañ teg sama xeet coono naa santaane bala kenn di jàpp mu socc ay gémmiñam beneen yoon mu ni bala kenn di julli mu socc ay gémmiñam ndax tabaarakallah diggante bi lekk mën na fi jaar nga daal di rek def di boros mu daal di wàcc bokk na it ci cet gi wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alxaayit aw lamastumu nnisaa falam tajidu maan fatayammamu sa'idan tayyiban kenn si yéen su feebaree wala moo tukki wala mu dem gannaaw kër wala mu joxasoo ak soxnaam te gisul ndox na tiim ci pàkk bu laab famsahu bi wujuhikum masa seen kanam wa aydikum ak seen loxo inna allaha kaana gafur rahiman kooku pour laablu la su fekkee da nga nekk feebar wala ngay tukki wala tabaarakallahu nga sëy te ndox nekk fa boo sangoo te war a taxawal julli sharia bi may na la nga tiim def li nga war def mu ni يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا yéen ñi gëm yàlla gëm yi mu santaane gëm wetaayu bàmmeel bu leen jage jullikaay bi fekk yéen ngi ànd ak mandite gu reesul mandite gu reesul sàngara ca la bokk wante mandite gu reesul ci fii mooy koo xamante ni sa bopp i xalaatu adduna ñoom ko fees dell ba mu wóor la ni soo kàbbaree dootal teewlu yàlla xalaatu adduna ngay teewlu mandité gu reesul la ak kan ki nga xam ne mi ngi ànd ak janaaba tabaarakallahu ndaree mu sangu set ca la mu na la mu la mu taqoon wa in kuntum junuban fa taharu képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak sobe sëy nee na nga sangu tabaarakallahu moo gën ci yow wa yasalunaka anil maxiid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في البحيث ولا تقربوهن حتى يطهرن suñ la laajee mbiru mbërëg mbaax mbaaxu jigéen ne lool lor la sobe la na ngeen sore soxna yi suñu àndeek seen mbaax mooy bu leen sëy ak ñoom kenn du sëy ci kaw deret jooju ndax deret jooju sobe la te mi ngi am ay microbe yoo xamante ni mën na la lor mën na ko lor l'islam dafa réglementé dundu doomu aadama bàyyiwuñu ak sunu bopp ñu mel na ay mala dañ ñu réglementé ku nekk ñu teg la si yoon yoon woowu ne nag soo si jaaree insha allahu taala yàlla mën na la suturaal nga am diine ju sell jëflanteeg doomu aadama yi jëflanteeg gu sell bokk na ci dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waruloo toog ñeent fukki fan te watuloo sa poqatan war sa karaw naq mais yii le béréb la yoo xamante ni dafaa fat sobe dafaa fat tilim dafaa fat microbe te microbe yooyu mën na propagé wu tabaarakallahu wàllu sa soxna wàllu sa doom wàllu sa njaboot nekk ci biir société bi nag ci ngelaw li ku ko naan wann ko rek leneen di la dal donc ñun suñu société yii feebar goo xamante ni du jóg mukk koo gis mi ngi saqat koo gis mi ngi am feebar yoo xamante ni kenn xamul lu mu doon ay infection weesuwul microbates yi nga xamante ni ñoo nekk ci environnement bi environnement bi moo tilim ndax dëkk boo xamante ni lépp mbalit la fa ngaa jóge ci région capitale yépp foo dugg foo toog gox boo dugg mbalit moo lay teeru mbalit moo lay gunge nit ñi doomu aadama yi ñoo ngi dëkk ak mbalit yi mais loolu lu garaaw la ci société ñun ak mbalit yi ñooy fanaan ñooy yeewu moom ngay noyyi soo moytuwul sa biir ñam bés bu nekk mbalit dana ci dugg ci loo yëg ak loo yëgul donc hygiène pour nit ki mën jaamu sunu borom tabaarakallaahu dafay set ci yaramam set ci lépp lu ko wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaamuru bi ghusl aydi wal fam qabla taam wa baadahu dafa santaane bala nit di lekk mu raxas ay loxoom donte kuddu ngay lekke mbaa fourchette ngay lekke ne raxasal sa loxo ndax microbe ya ca loxo ba mën na rogaat ci kuddu gi mbaa ci fourchette bi mu teg ca nag ni raxas sa loxo laata ngay lekk dafay barkeel ñam bi soo raxasee sa loxo soo lekkee ba noppi doo ko ñàkkati mukk insha allah gis nga lislaam réglementé kon raxas loxo yi laata nga lekk ak raxas loxo yi soo lekkee ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na gannaaw ba yàlla waxee laa bu yëre yaa ayuhal mudaffiru qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyaabaka fa tahhir wa rijsa fahjur ee yow mi dëkk su sangu qum te ma yoxante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógal nga woote nga jajje nga xubbe ñu màggal seen boroom wante wa thiyaabaka fa tahhir na nga laabal sa yére kon laabu yére boobu ca alquran la ko yàlla jëkk santaane yére bu bees ak yére bu màggat ñoo ci yem na laab na bañ taq sobe na bañ taq tilim ndax nit mën na sol lu bees taq fekk sobee nga ceeg ànd nit sol lu tilim lu màggat lu màggat te loolu tabarakallahu àndul ak benn sobe kon mbir mi nañu fexe ba sobe yi soreñu rawaate ne sooy dem si jullikaay ba yàlla nee na ci alquran yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjidin yéen doomu aadama yi su ngeen dee dem sa jullikaay ba na ngeen sol seen yëre yi gën a set gën a laab ngeen fonk ko dem si jullikaay ak yëre yu tilim yow respecté wuloo sa bopp wante ormaaloo borom bi ormaaloo néegu yàlla bi dëkk malaaka yi dëkkee te malaaka yi bëgg xet gu neex wante ormaaloo ña nga war dendal julli ndax ku dend ak nit ku tilim su ngeen àndandoo kabar su ubbee gémmiñ gi maara deytaan yi lor na la sa xel nekkatul si julli gi su ngeen àndandoo sujjóot su ne subhaana rabbiyal ala ba gémmiñ gi jolli yàq na sa xel wante xetu xetu yaramam ak xetu yéreem mais tax na yow mi dend ak moom doo tal concentré wu si julli gi kon tooñ na la imaamu malik ci ngiram egg na ci ba ku dugg si jàkk ak yére bu tilim ak xet gu bon ne nañ la ñoddi ni la kaay yow sa jàkka ji du sa place demoon jullee ci sa sa biti xam nga fulla googu am na ci ay jàkka yu koy def am na responsable suñu la gisee nga mel noo mel dañ lay fekk ñoddi la ci gannaaw ñu la kaay yow fii du sa place demoon nga jullee fee ci biti ngir nga benn yoon soo ñëwee bëgg bokk si gaa yu baax yi daa am noo mel daa am loo xeeñ tabaarakallah pour mun bokk si ñoom tandiiful buyuut laabal biir néeg yi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha tayibun yuhibu tayib nadiifun yuhibu nadaafa karimun yuhibu lkaraam nee na yàlla ku set la dafa bëgg lu set ku teey la dafa bëgg ku teey yàlla ku tedd la dafa bëgg ku tedd fa tabaarakallahu fa nadifu afliyatakum wala tashtabihu lyahud ne na ngeen laabal seeni ndéeg bu leen nuru yahud yi arab yi dafa am nu ñuy xase yahud yi mbaa nu ñu leen di ŋàññe nee nañu dañu tilim dañoo yar karaw poqotaan dañuy yar karaw naq dañu ànd ak mbalit mu bare soo bëggul nurule ak ñoom fexeel ba yooyu tabaarakallahu bu mu la dal niki noonu laabal mbedd mi ngay jaar yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam na ngeen moytu bërëbu rëbbekaay yi ñu ni ko kan mooy bërëbu rëbbekaay yi mbedd mi ñuy jaar mbedd mi doomu aadama yi di jaar mbaa ñu lal taxaw di julli léeg-léeg nga romb fa ñandu bàyyi fa mbaa nga jonkan fa baa nga jonkan saw fa mi yiile ku romb li ku def lu bon lii yar na ko yàlla nangam mooy bërëbu rëbbekaay yi daa daa jonkan ci mbedd bàyyi fa ñaawteef boobule kii jëkk romb naan kii moo bon yal na ko yàlla alak rëbb daf lay dal nee na bokk na ci liimaan di baatu laa xawla wala quwata illa billahi al aliyi al azim mooy baat yi gën a for ci liimaan wante bokk na ca fekk ci diggu mbedd luy lor doomu aadama nga dindi ko mu dem ndax mbedd mi tabaarakallahu mbeddu buur la mi ñëpp a ko bokk espace commune boobule ku ne am na pour mën ormal espace boobu seetal ko laabal ko ñiñ mënu ñiñ mënu ko jariñoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ida sami'tum at-ta'awun bi ardin fala tadxuluha su ngeen nekkee ci dëkk ñu ni dëkk bi de benn jàngoro feeñ na fi bul génnati ndax yow bala ngay génn dëkk bi war nga vacciner sa bopp mais soo gaawantoo génn dëkk bi na xaaral mu rëcc balaa ñu may wàll fekk jàpp na la nga dem ci beneen dëkk yóbbu leen jàngoro jooju ci nga lislaam ni mu yemalee nit ñi moo indi sooree tukki dañ laa laaj carnet de vaccination vacciné la ndax jàngoro bi am fii bul ko yóbbu ci beneen réew yàq seen réew gaañ leen maandu te jullit loolu war na ci bokk ak setal jàkka yi ku nekk am nga sa néeg di nga ko bale di nga ko fomp di nga ko cuuraay di nga ko parfumé laaj ca dara bu rafet néegu yàlla bi nag fa nuy jaamoo yàlla yaakaar ngërëmal yàlla la waay neex defe da ngaa gis ku doxe tànkam ci mbedd mi mu taq répp ak suuf su tooy nga ñëw dugal nga ci jàkka ji di dox di dem ku sujjóot sujjóot ci suuf su tooy jooju loolu tooñ la mbokk yi ñun ñoo waye yar sunu bopp am na benn waay dafa dem ci jàkka jàkka ju rëy tabaarakallahu am mbooloo jumaati mais keroog ajuma ja xaw na yàqu ndax ñaa ngi toog yéen maa ngi xutba mais jàkka ji hygiène bi dafa des ndeke benn ponkalu mbóot moom dox na bu dugg ci tuba yu kenn di mareen di dem ba nu jógee taxawal mbóot mi am nu mu def mais jàkka ji yëpp a jaxasoo la xawla wala quwwata illa billah loolu yi tamit manque d'hygiène la yooyu nañ siy jóg te bàyyi ci xel wallahi soo demoon ci yéen ci réewu lislaam ah da ngay kontaan daa dugg si jàkka wanagu jàkka ji mën nga fa dugg lal sajaada tëdd nelaw ndax set ndax set jàppukaay yi dafay set waa jaa ngiy fomp ku jàpp ñu fompal la wante fii léeg-léeg yenn ci bérébu jàppukaay soo nee yunu da ngay génnaat ndax tilim ak taq ak xet gu bon soo demee makatal mu karrama ba mun na fa njabootu waa Sénégal di daal la xawla wala quwata illa billahi alali alazim ku fa feebar fa nga jomme wanag boo ubbi da ngaa tëjaat dañuy xaaral ma dem seeti feneen baa baa ma muñ ko lii dana jaadu kon ñun am nañu problème te sunu problème ñun la ci sunu biir nañu bàyyi xel set set ci sunu yaram set ci sunu yére set ci sunu gox set ci sunu mbedd set ci sunu ay jàkk tabaarakallahu ba foo dem yóbbu fa set lii daal maa ngi koy dénk suma bopp di leen ko dénk allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafaruqana min bacdihi tafaruqan macsuman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari rakaa rakka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu